jërëjëf euh, yéen sunu mbokk internet bu vingt 221 people ñu ngi leen di nuyuwaat di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat na leen di kontaan ak mbégte fas yéene delloo kilifa mu di kàngam ñu waxtaan ci xam-xam ni koy defee saa su nekk. waaye tey nag doonatut koo xamante ni dinaa def si waat di koy présenté ndax xam nañ ko bu baax a baax ci biir réew mi bitim réew. rawatina paj ak ñaan bi nga xam ne mu ci suñu borom di koy suturaal mu ci am ay résultats. lii di xew-xew jamono di actualité am na nu mu gis ci nguur gi ni muy doxe rawatina président Ousmane Sonko ak euh, président mën naa ne Bassirou Diomaye Faye noonu laa ko mën a waxee. laam ji dox ci diggante Eumeu seen Sa Thiès am na ku mu gis mu daan waaye am na loo xamante nam du dee sarax nam mën na ko génne ci kaw xam ne gis na ko dinañ ko yaatal ku bëgg a xam li kilifa bi war a waxtaanee lépp topp leen ñu bisimilah ma bàyyi la nga nuyoog mbokk askan bi. auzu billahi mina sheytaani inni lakum minu nasiru mubin mhm. wasalaatu wasalaamu ala borosita jëlli saati mhm. awlu hamidu wa awlu shakiru muhammadun alhaadi ila siraatil mustaqim ah. wa yaa xayra masulin wa akrama man ata wa yaa xayra mamulin ila umatin xalat taqidu kawkabi yaa rabbi nuuran wa bahjatan mhm. mada dëxër wala ayaamu yaa nuuru jal jalat mbokk yi 221 people ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di baalu xaq ci korte gii ñu génnee maa ngi jéggulu ñëpp di lu waral jégalu ñëpp gi maanaam léeg-léeg am na ñu may jëflante ak si wàllu client yi. waaw euh, sama problème lenn laa amul benn client boo xam ne tey mën naa wax ne ne. dugalal na ma xaalisam te jotul ay càngatam. Mhm. waaye léeg-léeg nag nag moo waxtu yoo xamante ni. Mhm. mën naa laa gëdd waaye loolu fekk liggéey bi. moo demee noonu. waaw soo ñu gisee ñu toog di def émission. waaw ñoo ngi toog sol suñu dara yooyu ñoo ngi nekk. waaw waaye liggéey bi heure boo si duggee. waaw boo connecté Mm-hmm. wa yaa xayra masulin wala nga dem si jasusun saqusun raw fa yaa ilu waaw ba ñoom ñu installé mm-hmm. su paree nekkutoo yow jonn mu toog dafa am luy bokk si yow te ñoom seen tàngoor gi ak seen leer gi waaw dafa ëpp lool nag léegi ñoom duñ bëgg coow lu bëri lool moo waral ñu monsieur gëdd ñëpp lenn la dama lay seetaal tàmbalee war nga naa waaw sëñ bi kee lii mooma daal non duñ bëgg lool parce que rawaan laay seetee waaw mëntu nekk sama noppi di wax yow tamit nga nekk di wax ñoom loolu bëgguñ ko moo tax su ma defee jaddi seet mhm. ñi nga xamante ni jox naa leen carton son wala ma gëdd leen wala mhm. ma ne leen dutuma leen ñaanal loolu la waaw waaye nag ñun ñun ay nit la ñoo xam ne dara nekkul si ñun waaye nag mhm. liggéey bi moo demee noonu tarkal la ñu ngi siyaari ñëpp jéggal naa ñëpp jàppalu ma kenn dara képp koo xam ne tooñ naa la tamit maa ngi lay jéggalu waaw di lay déglu si say question insha allahu tarkal la kon mu ngoog jërëjëf sëriñ Jono Lidia Ba am na solo ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane acca fas yéene jaar ci jaarukaay bi niñ koy waxee ci buntu comme ni ki médecin yi kenn ku nekk ni ngay saytoo sa malaat seetal ko wala ni ko ñeen ñi xamee mu di diagnostic yow nag euh, bëgg naa ñu yaatalaat ci seet ndax euh, nit ñi suñu bëggee jënd fas di am gaaf soxna soo ci bëggee dugg ndax seeni wërsëg ànd na ba ci suuf si nga war a jënd def ko terrain sanc ko ndax jënd jënd dëkku fa wala amut rab yu fa nekk yu mën di yàq lii lépp bokk na ci li tax tukki bi itam ndax leer na wala leeragut bokk na ci li tax nit ñi di seetlu bisimilah. da di lu xam-xam solo. waaw waaye mbiram seet du moytul ma ko gàtt ki. Mhm. wala ku njool ki. walaay am na sëriñ su bëree bëri bëri. Mhm. ñoo tas kër yi. waaw parce que tey nit ku ñëw si yow nga seetal ko ne ko. Mhm. moytul ko xees ki. waaw waaw kër goo dem am na ko xees. ko fa nekk na ku xees loolu du njëriñu seet. maanaam tey doomu adama boo mëntu gis. waaw am na noon am na ko koy pexeel. man mii toog am na ay noonu. nga naan ko da ngaa bëri ay noonu. loolu teguur fen noonu moom ñëpp ko am. wallaay waxati ko njëriñu seet. Mhm. duud ay loolu njëriñu seet mooy sarax bu baax rek nga xam ko. waaw waaw bul fa nekk saa di détail. Mhm. man nag laay alxuraan bii laay seetaay. xam ne dafa composé ay rawxaan su nurihim ayatuna fi uhuh. uhuh. wa fi anfusihim waaw hatta yatabayana lahum annul haqu uhuh. aw lam yakif bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun tarkal wallahi lahasim gars yi di wax may dégg waaw la wax du deñ ndeysaan bépp sax boo xamante ni jàng naa laay bi lim bu moo ko a jàng sa tur ak sa turu yaay waaw konatu si fajjasu suñ saqo suñ raw fa ya ay luy lu ñu wax waaw day day nekk dëgg parce que xam nga seet léeg dañ fa nga gis ay sëriñ ñu gis benn mbir ba wax si ba mu leer nañ waaw est xam nga ne wooti bii passé nii Bassirou Diomaye Faye amu Amadou Ba waaw wallaahi la xasim ba si bañ suba la ñuy woote waaw moo moomoon ndam li kana ko moomoon Amadou Ba mu moomoon ndam li ah, gis nga gars yi ñu ngi wax naan ay sëriñam yi dañ koo nax waaw wallaahi naxuñ ko si ndam lu toog ndam lu set wecc la toogoon si leen toogoon xam nga affaire yi kañ kañ la toxu waaw bañ ñu suba la heure bii nii sus wallaahi la xasim dañ ne ma utal benn meewu biir deel xam nga man Bassirou Diomaye Faye laa noo ñaanal xam nga ñëwoon nga fii nii waaw waaw loolu yëpp mhm. man damaa far waaw si Aliou Mamadou Dia wala Bassirou Diomaye Faye ñaar ñi ne si kenn gañ waxuma la woon lu leer nii nga ko waxee woon bañ toogee ne booy suba si lañ na ma mhm. utal benn meewu biir deel waaw xool ñaari xale yu jigéen ak kenn ku góor mhm. nga jox leen ko soo leen ko joxee dañ koy xëccoo ah. fekkee ne tëjji neen bureau bi da koy xëccoo ba meew mi daanu tuuru waaw waa waa waa waa APR yi Amadou Ba lépp lu ñu defoon yàqu na dafay gagné. tarkalla ba ma xooyee xale yi. Mhm. dama la ñaa jox saraw par topp seen kaw. Mhm. ñu mooy njëkk naa kii ñu yem si. waaw parce que ba mu tuuru am na benn booy boo ko nar a yëkkati ku si njëkkoon a moom moo ñëw rek pel ko tànkam lu si desoon yow xapp si suuf. tarkalla si laa dugg ni toog xam na waa ju woon. ku sonnoon si yëfi la. waaw ma ko suba bi hawlilaay wa quwwati yi. Mhm. ndam la nga si Bassirou Diomaye Faye. allahu léegi foofu lu ma fay jàngale. mooy sëriñ si nañ di tee si mbir. comme nga teel a gis rek ne nanga mooy am ah. gis nga borom isum laay lansam. man mhm. naa bàyyi ba dernière heure mu toog. waaw ñaan yàlla lu amul yëpp yàlla sensé ko. parce que fii maa la fi waxoon ne la yàlla dafa am ñaari calendrier. waaw am na calendrier goo xamante ni. Mhm. dafay rëdd dara. ñaan ñëw mu fomm ko. Ah. waaye dafa am calendrier gu ñëw wa yu sabitu mooy luy saxal. waaw xam ne yàlla lépp lu mu fa def. Mhm. dootu ko dindee wallaay ndey sa yow na soo nekkee sëriñ sa seet leerul waaw nga gëpp-gëppal nelaw yaa ngi gént téeméeri gént juróom-ñeent <laughs> waaw nga yeewoo rek ne Amadou Ba nii wala mbër mi mooy daane saari joonu lijaabi mën naa dem ba dara dernière minute wallaay lancim sarax yu ndaw wala ay dog yi laay def affaire bi dafay ëlbatiku tarkal la kon loolu nañ ko bàyyi xel mbaalam seen moom sëñ seex waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax waay wallaay laasim ñu ma koy defal ñëpp mhm. képp koo xam ne jëflante naa moom lii su nekkoon émission boo xam ne nit ñi woote waaw dañ naan la joonu li jaaba moo daqaa seet ndamoo ma ko de waaye lu ma yàlla defal la macha ma déggee sëriñ bu ne woon seet ree ah. may jàpp di nga seet waaw seet du ñuy jàng waaw ah. jàng gi mooy hmm. soo jàngee dafa am foo yem si jàng mi parce que njàng moo ci dafa am fu yem hmm. waaye nag soo bëggee. waaw xam ne tey mbir mi fu mu mënatoo la nga koy xam bul ko jànga mhm. xam nga lan ngay connectoo. waaw waxalam naaw min la dun naa xelman. <laughs> yàlla mi ne dama la ñuy xamal xelmu luduna yu. Mhm. xam nga xam-xam. waaw yàlla da ko wàccee muy ñetti xaaj. lay sàmm xelmu saaha. Mhm. xelmu kitaab. xelmu luduna yu. waaw su fekkee ne xelmu saaha la. mooy si heure bi heure bi. dafa am xam-xam boo xam dafay wàcc si sa xel mi rek nga xatti noonu. xam nga Euh, ñaar ñi nga xamante ni dañaa amoon doom si hôpital bi. waaw góor ak jigéen ñaari soxna yi bokk fuñ matoo. Mhm. kenn ki am góor. waaw kenn ki am jigéen ñoom ñaar ñuy xëccoo doom bu góor bi ku nekk ne moo ko jóor. ndeysaan yeneen ci yàlla Souleymane. foofu moo leen a xàtte waaye xel mu sang la jëfandikoo. Ah. mooy lu ah. mu jëfandikoo xel sang dafa wax ne. waaw yow ndaw si kan moom moom doom ju góor ji mi ne maa ko moom ne yow kan moom mi ne maa ko moom. Mhm. ne laa léegi daal comme yéen koy xëccoo xaar leen xam naa nu may def. waaw si la yëkkate si digg bi rek mu xaajaloo ku nekk ma jox la sa wàlla waaw yonent yàlla Souleymane ba mu xàccee ki nga xamante ni moo jur doom ji mm. moo gën na ko waaye bayee naa ko kee na jël na jël na jël bayee naa ko ko bul rey si la xamee na nag kii lu tax mu am yërmande waaw moo ko jur kële noppi ñu xam ne jurul ko ah. léegi na loolu mooy xel mu saa mooy loolu xam nga binduñ ko si téere waaw waaye yàllaa ko kii rek mu xam mm-hmm. ko loolu mooy xel mu sant mm-hmm. xel mu kitaab mooy lu gi nga jàng waaw ñu ne la doom bii nii mooy Nuuhu waaw doom bii mooy Muusa mm-hmm. doom bii mooy Iisaa xam ne yow léegi société la nit ki dëgg la wér na de waaw waaye si xam-xam nga boobu nga yem waaye na fekkee ne xel mu lu dund ñu nga yore waaw moom yàlla moo lay dee ah, waaw dañ lay partagé mhm. si woo maa yent ko xanil hawa in huwa ilaa wax yun yuhaa mhm. xam nga ab yëlantu xamatut déedéet waaye nag ba léegi awlu yàlla yi léegi xutbaani ya moo xaye mhm. ak risaala ah. waaye nuboo moom nubuwa xamutut macha allah waaye léegi xutba xam ne risala am na léegi nag si yooya waaw xutba laa bëgg wax ak waliyu mm-hmm. léegi si la yàlla wàcc waaw léegi nag si loolu nag seet waaw yàlla moo si dimbali nit mm-hmm. parce que nit da nga ko jàngal seet sax mu dem ba si kanam waaw xam man si loo xamante ni yow mënoo ko si woon waaw moo tax si wàllum seet moom képp koo xam ne yitte na la mhm. soo ñu woowee la wax lu leer nañ si kàttanu yàlla tarkal acca ca noonu la ñuy brest ko dugg ci noob suñ ko waxee seen xel dina jëm ci boole ñoo xam ne dañuy féewaloo ci njaboot gi waaye ñi nga xam ne dañuy bokk bërëbu liggéeyukaay too noonoo bi dafay bari bokk na ci ñi nga xam ne dañ ko fi jaarale noob acca bërëb bu nekk na nga ngeen waaw léegi nag suñ seex mhm. mbirum noob soo seetloo waaw wallaay la xasim mhm. si télé laay waxee waaw soo demee Saalum. waaw billaay wal kitaay bu manque daara ji gën a nekkatul tànk mhm. lay am ñuy jiwee ko koñ yu ma wëroon waaw ay tarawoo escale mhm. am soo koo gisoon foofu miri na muy seet gune guy ñaan mhm. man lay seet te ñoom ñëpp wàllu nopp laa noonu leen defal seen jëkkër yi man xaalisu nopp moom laa njëkk lekk si mbiram sëriñ wallaahi la xasim yàlla moomu si xaasal mbiram nopp da loo xamante nii lu tax nekkuma di see communiqué waaw dama koo téye nii sama loxo ah, te ku nekk laa koy defal moo tax dama liggéey boo xamante ni dama koo tayal la waaw ndeysaan moo tax góor gi ne ma liggéey moom nit su ko mënee rek dasee tayal <laughs> mhm, mhm. man damu ni jii nii wallaay lancim wàlloom nopp waaw képp koo xamante ni naa la ko mhm. da nga si am résultat macha allah liggéey si lu weex tàll maa ngi koy liggéey si lu ñuul kuku maa ngi yore poson nopp goo xamante nii yow mi nga xamante ni da ngay ñëw toog ma defal la ko mën naa la kaa fasal fa ma kay fas mhm. waa ndaw si nga noonu wax ak muy bañ wallaay laa xasim da nga koy woo sama kanam wax ak moom mi na la waaw wala balaa ñu fay jógee moom mu xoola waaye noppi daal lu si gën a wér ñetti fan du ko passé te amoo si résultat macha allah waaw parce que nag maa ngi koy si eh, kii waaw ci buum gi dama koy liggéey si poq gi waaw waaye su fekkee ne poq gi la mhm. moom mën naa diire trois jours waaye su fekkee ne da nga fekk Saloum waaw xàncee gi gis gi moom su ma ko si fasee si saasi. waaw lay nopp bi di jàpp. tarkal la soo loolu mooy lu ñuul li. waaw soo déggee ma la maa ngi liggéey si lu leer. Mm-hmm. mooy lu demee ni wàllu parce que waxoon naa la xaati mu rakkoon hakim gi. waaw mooy xaati mu mu rabban. Mm-hmm. émission bu ma ko njëkk tudd am na benn góor gu ma xoo. waaw ma foo xamee loolu. tarkal waaw parce que du yëfi ndaw. ma moom yàlla dem na ndaw laa. tarkal waaye lii ma nekk nii. sama mm-hmm. maam si la nekkoon. macha allah sama maam dund na. ba génn àdduna waaw mos am mécc macha allah lu du jàngale alquran ak wàllam ñaan kon loolu lu ma doon la lu ma man la walla wàllum nopp mhm. tubaab mu ñëw wax ne neexu sa jàpp sax wallaahi la xasim mhm. xàncee gigées xam nga mhm. defoon naa si benn wax ma ne sama xàncee gigées gii waaw xataa wëliyu yàlla sax su ma ko si fasee jàpp am na ñu ma waxoon ne ma nga ñàkk yar mais loolu du yar de xam nga lan la waaw ndeysaan suñu cheikh dafa am façon xam-xam yoo xamante nii mënoo ko gàllaajoo bu mm-hmm. ñaan yàlla ñu def la ko waaye kuñ ko def jàpp la man maadu noom nag si mbiram caaxaan waaw waaye képp koo xamante ni tey sa jëkka da laa takk di lay bunda xatal di lay teg yu métti métti mm-hmm. wala sa jabar déggulul la waaw xooma kon mu ko waaye képp koo xam ne da ngay caaxaan man soo ma wooyee du ma la liggéeyal te soo ne ma man caaxaanuma it man dama koy parce que yow sooy wax ak man man xam ne luy wax ak man te li mhm. may wax laay déglu man nit mënoo maa nax si ñaan yàlla jërëjëf wàllum noonu daal képp ku ko soxla waaw na si numéro bi jërëjëf jonoo donte nag ni ngeen ko gisee ci jëmm ji mën na cee doon ndaw waaye xam naa li mu làmboo ëpp na ndaw ndax euh, xam-xam seeni borom sédd na ko ko acce ñu dox ba léegi yaatal jàll ci beneen ponk jaaro yi bëri nañ de mhm. waaye sa jaaro su ma neexee ma ne benn doy na de ndax xam naa la ca dëxañoo moom ci njariñ bari na kaar macha allah. sëñ Cheikh. wax leen ko mbiram jaaro. Mhm. mu ngi nii ñaar laa si takk. Ah, waaw te ñaari bokkoon si lu ñuy dox. lay des am na si boo xamante ni. mu ngi mhm. sama waroon si jaada bële. waaw boobu tay ah. xam nga tey am na sëriñ su bari mhm. ñoo ngi foto xalwa. waaw génnaala wuñ naka su dul noonu. wala defuñ si carrément de. waaw mais suñ toogatee émission ay tuuxi doona rek la ñuy wax. <laughs> doy na waar yéen moo la laxasu. cay nga teg ne lii lu baax la. waaw. fekk du mu lay géete du baax. Mhm. moo tax jaaro. waaw képp koo xam ne <laughs> parce que jaaro da sunna sax. bépp mhm. jullit nga am ko parce que yonent bi da a yoroon. ndeysaan mhm. waaye da see am secret lu tax nit ñi sawaratuñ si. waaw gis ku naa la dama lay rëddal xaatimu Suleymaan. waaw bii soo ko takkee nanga ngay hubbe jaaro di see fekk ay kayitu journal ak. loolu de moom am na benn waay na jaaro bu ma wan mi ne 450 mille la ko si sëriñ bi fayee ko. te mi ne lu mu ko waxoon mi ne keroog suur bu ko takk dafa gën a delloo gannaaw oh mi ne si la sof sof la hóbbee ko uh-huh. kayitu journal yi la ilaha astafurlah léegi tey sëñ si yàlla gëm naa ne mm-hmm. nga ñaanal nit ki jox ko ca mu sangoo ko gisul mm. yow def nga li nga war a def ah. waaye yow naka ngay naxaatee ku la jox xaale boobu soo bindoon yaa allahu sax ah. dugal ko si ko yàlla sax moom lu mu ko jëriñ waaw waaye mm. li daal doomu aadama lépp loo xam ne maîtrise woo ko nanga ko fa bàyyi wallaay ndeysaan parce que xawma manuma lu si duma kenn fii du si duma kenn yomal xiyam déedéet waaye mbiram jaaro sëñ Cheikh waaw maa ngi siy liggéey lu xam solo maa ngi mhm. yor façon jaaro boo xamante ne képp koo xam ne mu ngi sa loxo bi waaw lu ñuy wax faru rab ah. wala cat wala mhm. liggéey du ah. la mën a tee jàpp am na jaaro boo xam ne si wàllu hubbeeku rek si lay dox waaw waxoon naa la ne la ndaw si nga xamante danoo ma ko laaj ma ne ko si bayra la dox mi ni ma doxuma man bayra du ma ko daw waaw day toog kasu du takk jawra bi wallaay la xasim te émission bi ba ma ko defee seetaan na ko mhm. mi ni ma damaa naroon a dugg waaye ma ne ko loolu du directe waaw <laughs> waaye jaaro daal moom ñu ngi koy liggéey koo xam ne bëgg nga ko mhm. soo ñu wooyee jox ñu sa tur yaay ñu xool sa tabiantu xool sa raw xaaniya mhm. tëgg lu ñuy tëgg liggéeyal la ko jox cangat yi ma nga sangoo ko takk jaaro bi waaw da ne jaaro joonu li ak yeneen jaaro du benn wallaay kii jërëjëf acca nit ñi nag bëgg nañoo yàgg ci kaw lal yi xaw ma feebar bi léegi ban façon feebar la suñ waxee di koy ji ñam yi waaye nag xaw ma lan laal lu ca laxasu euh, ku bëgg yàgg ci kaw lal koo xam ne néew kàttan waaw bëgg yàgg ci kaw lal suñu si nit ñi dañuy bàyyi loo am solo waaw muy tey dangay bëgg a soxna hmm. sëriñ xoolal la na la baax na waaw nga dem rek takk baax na gi mooy seen wàllu tabiatu ànd na ah. seen wàllu rawaani ànd na ah. waaye sëy bi balaa muy taxaw mooy balaa imaam bi di xutbu dafa am sarax bu ngeen war a génne sarax bi ah. yow da nga am àndaale moom mu am àndaale mm-hmm. léegi sarax bi mooy waral seen ñaari àndaale yi waaw day nekk plus ak moyenne xam nga plus ak moyenne suñu taxawee rek résultat am waaw waaye plus ak plus kenn day wàccee dara <laughs> du mën a wàcce sarax bi mm-hmm. da nga koy def pour ñaari rawaani yi ànd te chaque weer chaque mm-hmm. weer chaque weer dafa am sarax boo war a génne pour couple boo gis waaw chaque weer am na sarax bu ñu war a génne pour ñun ñaar seen couple gën a neex ko dégg xamandoo léegi nag mm. Sénégal da ngay gis waaw weer dee nga fay courant fay lépp fay ndox mm-hmm. fay sa lépp mm-hmm. mais yaram bi moom doo fay dara doo def benn sarax te yaa ngi xam nag rawaani ya wallaay ndeysaan ñoom tey tey nooy fayee ndox ak courant su weer dee war ngaa xam sa saraxu rawaani ya sa diggante ak sa soxna weer bu dee <laughs> ak sa njaboot waaw weer bu dee soo jëndee saako ceeb dafa leen ñoom tamit seen sarax loolu magu Saalum yi loolu la ñu def moo tax ñu mën a dund téeméeri at dem ba am 70 ans di ngénte loolu moo ko waral ndeysaan wàllu néew kattan am na ñoo xam ne góor ñoo xam ne seen xawra a tolloo tolloo na ko mhm. ñoom xam ne ne xam neen kattan ñoo ngi lekk-lekk gu baax mais seen soxna heure buñ téemee waaw dañuy gaaw a daanu loolu fekkee ne ndaw si yaa ngi sëy moom yaa ngi sëy moom mm. si biir bi mm. wala nu ngi sëy ak am na góor yoo xam suñ demee ba simmi ko rek seen yaram bi fa ànd dis seen ah. fit bi di tëf-tëfi ah. léegi fekk loolu ñu ngi si signaler. fekk boobu rabu ndaw si. waaw wala yow sa rab bi. waaw moo daakurut. loolu nag su daakurut laa la asim nguuru yu si àdduna yëpp. waaw soo ko naanoo mën a fexe ba am kattan. sarax yooyu nag. Mhm. moo lay dimbale ba nga xamante ni ñoom ñaar. waaw dafa euh, seen seen wàllu rab yi. Mhm. daa am fu ñuy taxaw sooy loolu ban laay lañ koy defee. waaw ñu ngi koy defee si kii nii laay ba si sóor suñ këf la nekk. waaw moom lañ koy liggéeyee. Mhm. suñ ko liggéeyee ba noppi. waaw soo ko jëfandikoo yow sa soxna. waaw comme su nga ñëwee sa yee ñaar. waaw luy luy génne si yow. Mm-hmm. moom ngay ut carton yii nii nga fomp si. waaw soxna si fomp si. Mm-hmm. am na luñ koy liggéeyee. waaw nga takk ba mu dëgër takk lu soxna si fomp woon takk teg. Mm-hmm. lu nga fompoon nga takk teg. waaw da ngay dem Saalum digg-digg lu tool xam nga tey tool yi dañuy denda mais dañuy def digg-diggal. waaw waaw léegi digg-diggal boobu. da ngay dem si benn ceeru tool bi. waaw nga suul fa benn bi. damaas si benn bi suul fa benn bi digg diggal bi jaar seen diggante waaw loolu mooy waral rab du du yàqare seen diggante rab bu ñëw rek day taxaw mag ñi secret bii la liggéey si wàllu couple mhm. waaye nag gannaaw boo ñëwee fekkee ne rab moo lay térésé bañ fa jàll rab bi ba mu wér mhm. maa ngi yore sunguf soo xamante ne képp koo xamante ne jëfandikoo nga ko mhm. su fekkoon nga yoro omérit wala ndoxum siti waaw da koy raxas mu set sunguf si soo ko jëlee mhm. dafay raxas sa biir bi da lay may kattan mhm. sunguf bi moom man ko yore néew ngay tàngal ak def si waaw naan ko sunguf su neex la mhm. mais nu mu neexee noonu nun ngay sëyeb yaay sëy ba ndaw si dawal boppam wala mu la doy na wala la si waa yow doo dawati kaw lal macha allah te day raxas sa biir bi waaw waaw mu ngi noonu acca kaaraange mënuñoo waxtaan ba pare fàtte ko ndax euh, bokk na ci loo xam ne day jàppale nit kii ba mën naa ne dundam sax mën naa tawféexe kaaraange bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def c'est Cheikh sama gars yi jàmbaar leen waaw laay boobu rëccoon ma waaw léegi lañ may kii mooy surtout këf yi jinne la ko jox waaw waxtaan mu ay xasan wa nu quudun wa nu xale bu mu saatal yemini wa saatal simaali wa kal bu mu baasitun siran yi bil wa léegi mhm. loolu istuwaaru ahlu këf yi waaw xam nga dafa am ñu leen fa fekkoon nan la ñaa lor waa alu këfi xam nga ñoom ñoo nelawoon junnee xat mhm. léegi nag secret boobu soo ko defee waaw sa sa rab bu lay yàqal waaw loolu da nelaw loo xam nga tey doomu aadama du du dund junnee xat <laughs> ah, wallaay léegi rab bi balaa muy xam fu mu nekk fekk yow mën naa wàcc nga liggéey laay ba moo nekk noonu tarkalla ba tax subu ay xaasaan lan nga laaj léegi sax macha allah ñëwal leen ci kaaraange protection boobu am solo waaw kaaraange seen mhm. cheikh dafa am solo wallaay ndeysaan parce que tey ndaw yu bëree bëri bëri bëri bëri waaw fu ñuy jàngee seen yaay di sonn si ñoom. waaw dañuy dem ba liggéey rek. ndeysaan wàcc. wallaay waaw te nga sëñ Cheikh lii moo gën a jafee ñaanal nit. mooy nit ko am tiranga. waaw ñàkk a kaaraange ba ñu liggéey ko ba mu ñàkk ko. waaw billaay dana mere sëriñ si àdduna bi yëpp. wallaay waxati ko. moo tax doomu aadama. Mhm. wolof nee na. xeddee ko balaa ngay lakkale. waaw dëgg la de xoddee ko balaa ngay lakkale de mhm. ba ngay man na ko def. wallaay ndeysaan waaye day am ñu lay wax ne la man de sëriñ dama laa sopp rek sa émission seetaan naa ko sawa da nga maa neex rek waaye man moom maa ngi sant yàlla am naa xaalis dara jotuma fekk boobu nga waroon a ñaanlu nag wallaay de sax loolu nga war a ñaanlu waaye gars yi dañuy bàyyi ba nga xamante ni ko mën a de sax xam ne tey soo na ko génnee sarax sax mi ne la xawma loolu léegi da nga jéppi sëriñ bi da jéppi sa bopp sa bopp moo tax yow mu toog si tiranga gaawal nga ñàkk sa bopp wallaay lu wér nga wax da ngay ñëw Saalum maa ngi liggéey loo xam ne nii si suuratu tawbati waaw maa ngi liggéeyee laaye boo dóor da ngay dóor kay fa sa jamu kon mm-hmm. si asmaawul baxtati yi si la bokk waaw si xeex rek lay dox xam nga moom dafa am juróom-ñaaru doom kay fa sa kon mhm. am na kas loo yaaxla su ba juróom-ñaaru doomi kii dañ koy liggéey surtout tawbati mhm. ko altine ba altine delsi su kiyee nga sangoo ko benn yoon jeex na mhm. fu la neex taxawal si kaw suuf wallaay lancim liggéey duutu la mën tee jàpp macha allah nit ñi nañ dem wute kaaraange muy man mi toog ak keneen ak keneen parce que nit ñi ba wuñ dara waaw di nga Bassirou mii nii toog ak Ousmane Sonko billa non seex Sénégal yi soxor ne. liggéey yu ma gis ñu li ñuy def ñoom ñaar. Ah. liggéey ëpp na. teel na de man léeg damay toog ba si kanam ma ne man su ma yëgoon. Ah. du ma ñaan yàlla yàlla demee wan. Ah. dangay dem ba si kanam yow doo ñemeeti sax génn sa néeg. wallaay day sax ndax ndëgg sërëx yu nit ñi di teg. cay da ngay bokk nit garan place. Mm-hmm. te fekk guddi goo ngeen toog liggéey na la ay xarit ak morom ka. moo tax jamono ji soo soo fekkee sëriñ. waaw lu waral sëriñ foo ko gis rek moo ngi jeex. waaw loolu moo ko waral parce que dañ lay wan loo xamante ni da ngay leer na lii dëgg la te doo ko ñemee wax ndeysaan te da ngay tiit foo mhm. toll yooyu ngay xalaat ne waaw doomu aadama bi lan la mën a defee lii nit wallaay ndeysaan yooyu nag doo si nekk di wax waaye daal maa ngi wax ne waaw surtout maa ñi nga xamante ni ñu ngi li ñuy dégg borom barke yi waaw nañ dem wuute kaaraange. waaw waaw solo de yem waaw mu ngoog acca mën nañoo waxtaan ba pare ubbeeku moom euh, doon loo xam ne mën ta ñàkk ci nit kii mm-hmm. ndax su ubbeeku wut lu ne dina la naqari wala dinañ ci dugg ba sonn waaye ubbeeku ba sa sàpp bi moom bëgg naa nga mosal ci gaay am loo leen ci laay biree waaw ubbeeku gi mm-hmm. am na lu ñuy wax fatxan fatxan mm-hmm. saban saban soo demee Saalum moom lañ koy wax waaye am na ñoo xam ne ñu nekkee ay sama mbokk Casamance yi ñoo koy wax fatxan fatxan ak ubbeeku la goo xam solo waaw baru xóot tamit mm-hmm. ubbeeku goo am solo la umu Moussa mm-hmm. mm-hmm. ubbeeku goo am solo la waaw waaye yooyu soo jëlee si yow lu tax du ma see waxtaan sama baru xóot gi passé dama see waxtaan daam mille dafa am cangat yoo xamante ni cent mille liggéeyut ko ah. parce que cangat yi lu war a lool moom sañ seex du ma sëriñ boo xam ne dama lay ñaanal cinq minutes ma lay xoo ne la ah rawaane nee nga génnee saraxo nangam de <laughs> am na ñu bëri nag tey <laughs> lu ñuy bëgg nga laaj leen tey xaalis tuuti waaye sëriñ yi lay def yooyu yëpp dañ leen laaj lu ndaw waaye dañ leen iri. soo xasee bu dugg ak ñoom ñu ne laa lu tax gisu ko dafa am sarax bu ñëwaat te faaw ñu def ko man hmm. du ma def na man xamul nu may doxee. Hmm. cangat goo ji dafa am sarax bu ma ànd waaw man dama naa la jox ma temps temps soo ma ko joxee man sama sarax. maay xam nu ma koy defee dama koy génne yëpp xam ne yow su ma la ko joxee da ngay gër ak sango waaw waaye fekk cangat goo ji dafa am sarax gu ma ànd ak pour nga mën a gis ubbi ko nag képp koo xam ne da nga kaa bëgg hmm. man duuma sëriñ boo xam ne damay xooj ay bërigay saafara ku ñëw ma tànqale biteel nga dem man damay liggéey cangat gu mat sëkk nga ñëw fay prix waaw ma jox la ko nga dem mhm. isaa waaxee ngi maa ngi liggéey moo ngi ànd ak xasam dàq Mhm. ak xasam néew oh, loo mhm. tëju tëju tëju tëju tëju soo ko sangoo hubbee ko parce que dànq la moo ko dàqa meññi néew la moo ko dàqa meññi amul de yi rek seen yi hubbeeku mhm. a man a léegi nag émission yi dama see tollutu foo xam damay jur bagage yi naan la lii mooy lii lii mooy lii fi mu ngi yaakaar naa ne ñëpp xàmmee nañ ko jamono jii mu ngi doon ku mën a yegsi si man nag ak ku mënta yegsi si man moo xam parce que duuna tim nga yor sa xaalis rek mën a yegsi si man parce que dafa am lu ma ñaan yàlla ah. yàlla nangul na ko mooy képp koo xam ne haajum du fajoo si man Mhm. su ma xoolee daf may cibutu jàlla jërëjëf waaye nag sama cànga di ñu ma koy defal ñoo ngi sant yàlla waaye hubbi ko daal képp koo yaa ko soxla mhm. wallaay la hasim sa xaale doo si réccu man tamit du ma ko tey man si mbedd mi fu ma neex laay dem mosuma ñaanal nit lu ma solo xam-xam bi waaye jërëjëf ci leral yooyu nga xam ne am na solo lépp rek ñu wér ko ci xam-xam ndax noonu lañ koy bëgg ñu topp mën a jëriñu acca euh, ci nguur gi la ñu jëm mu di politique su ma ko waxee ñaar ñi laa lay seppi lan nga gis ci ñoom premier ministre mhm. Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye waaw nguur nag moom dafa metti de waaye gaa yi ngi ci liggéey fi mu ne nii doxal sëñ Cheikh Sénégalais moom damaa xamul lan lañ bëgg ah tey da nga xool Bassirou Diomaye Faye hmm. président ah. ba mu toogugoon ñuy nekk naan fonk mag ñi nii ak nii lañ mel hmm. yee sukk jox ko ñaari loxo waaw ah, cër de gaa yi dina génn naan Mm-hmm. ay wortu dem foofu du torox toroxlu parce que mooy président bi <laughs> daa waroon dem toog si siis yu baax te léegi soo àggoon toog si siis yu baax yi ñu wax a ngi nii léegi yeegee na sukkal <laughs> moo tax sénégalais yi kenn mëntu fexe-fexe hmm. damay gis seen barki démb Njaay koo fecc moom barki hmm. démb Njaay maa ngi gis ñu taxaw naan waaw lu ñu waxoon du lii ñoo ngi nii xamaguñ liggéey yow xoola kii ba mu léegi léegi matagul ñeenti weer waaw te yow nguur gi pass luñ la jël mu ngi tàmbali di liggéeyante ministère yi nga xamante ñun fayoo ko mhm. yàlla sax waaw du tëb tëb rek dafa la dara alxuraan jaa ngi yàlla ba mu koy wàcc si yonent ci yàlla Muhammad ah, waaw mënoon na def kaamil bi yëpp wàccu ndoor waaye tey day wàccee aaya bi mhm. suba mu wàccee bii ah, suba wàccee saar bi nii la ko def nii la ba alxuraan ji xëy mat mu ngi ah, mel ne tey liir mhm. benn liir juddu doxee soxlam da ngay juddu toog ba si kanam mën a dégg mhm. toog ba si kanam mën a toog toog ba mhm. si kanam mën a dox waaye tëboo rek def lépp Bassirou Diomaye Faye tamit président nil kese la waaw mbir mi day a doy xamul si réew mi soo na ko ban nga man mi ne la xamu métier <laughs> ba diplôme nga xam mi ne xamu diplôme loo bëgg rek waaw waaw léegi yow nan la la président mën a jàppale si liggéey yéeme na de lool ñun ñaan nag li mu si gis jamono ji mhm. wallaay laa xasim yàlla rek moo ma tax di wax gars yi ñu ngi see def mystique yu bon a bon pour ñu ñaar seen diggante. fat noonu. si diggante Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre. teel na de xam nga doomu aadama moo doon noppali di nga ah. seex sa noonu waaw fig gisul ñu gas la suula du xam jàmm du am jàmm waaye président Ousmane Sonko fekkoon ne ay pexe mooy tax du yegg si fii nii du fi ah. yegg wallaay am ñoo yow yaa ngi pexe waaw lu ma ñetti at yaa ngi pexel nit hmm. heure bu set yàlla da koy sutural muy hmm. bi ñen ñoo def jëf ju mel noonu wallaay ah, ñu ngi fii si réew mi de ah wallaay la en tout cas daal nee nañ borom milliardaires yi dinañ leen am fu léegi nag nag ñooy jug ñoom tamit seen bopp <laughs> bëgg a def lan bëgg gars yi a leen tal Allah bu set lu nit ñee sànni su doomu kort ak doomu liggéey mhm. man de bëgguma mu nekk président subhanallah yow muy seet da dem ba si kanam da ngay tinne ndax lii lii àdduna jar na ko moo tax maa ngi wax daal képp koo xam ne ah. ba léegi ni turu yàlla boo ko tëyuloon bul ko bàyyi man de depuis mu toog ba léegi waaw turu yàlla yu mu doon leen siikar ba léegi boo ma si dara parce que instant bi combat bi heure bii la gën a diis parce que heure bii nii. Mhm. xam nga tey liggéey. waaw ji nga tey am na liggéey bu ñu la def pour nga dee deewoo de. waaw waaye sax xel mi mooy jaxasoo. Mhm. tey ji nga président Macky Sall. ba mhm. toog bees. waaw dafa naroon liggéey Sénégal. waaye yenn yu ñu ko def si lay am nit ñu bon. ndeysaan tey am na liggéey yoo xam ne su jàppee yàlla dafa lay boole nit ñu bon. nit ñu bon ñoo xam xam nga tey. Euh, président xam nga tey mëntu mëntu gouverner lépp. Ah. ku nekk dafay am ministère. waaw nga léegi soo amee ministère yu koy war na ndax liggéeyam dana dox te lépp dañ koy kii si moom waaw léegi nag dafa am façon liggéey yoo xam am na nit kuy fëggale ne ne man liggéey mënoo maa jàpp liggéey du la jàpp de hmm. dañ laa liggéeyoon pour nga dee deewoo de waaye yàlla fay gër rek tàggatal la jigéen yoo xam ne jigéen ju bon la nga bëgg ko takk ko rek sa mbir tàmbali di simmeeku <laughs> ngay wax ay tuuxi duna di def ay tuuxi duna mu lay may xarit yoo xam nii duñ la wax dëgg dañ lay jay ngay fiitur noonu ngay demee dem ba fooy xamee ne li may def kii fekk paase na. paase na moo tax daal gars yu def yu bon yooyu nañ ko bàyyi. loolu laa am lu may wax si. jërëjëf acca làmb ji dox ci diggante Eumeu Sène Sa Thiès gars ngi naan Sa Thiès mooy daan ñi naan Eumeu mooy daan affaire bi nag doy na waar kan mooy daan sëñ Jono. làmb jooja dama waxoon du du ma waxti si làmb. Mhm. parce que man dama dee kilifa ak diina waaye làmb jooju. Mhm. si mbër yi. waaw ñoom ñaar. Mhm. am na si koo xamante ni gàllaajam gi nga xamante ni moom la doon def di daane. waaw wala wala laxasim su demee si nekk cumbukaayam. waaw su ko xoolee du ko fa gis. benn si ñoom ñaar si ñoom ñaar. Ah. dana bëre ba daanu si lay xam ne gàllaaj gi nekkatoon si moom. Ah. am na daal koo xam ne daal ay mbiram moo ngi tàmbalee seen te ñu ko sës la nag. Ah. laa see yem. waaw na moom daal mu ngi daan am victoire bokkut ci ñu am défaite. ci jamono na gaaw daal mu yurife bagaasam yi. Hmm. waaw moom daal sama émission bi lu ma si bëgg si ñoom ñaar ñaanu lu ma si kenn waaw waaye seen néegu cumbukaay nañ dem yurife bagage yi ñun indi si làmb ji waaw nañ fa yurife ndimbal la kan la kan la ci mbëri ndimbal non non du ma si wax waaye daal su xoolee moom dana xam ne xam na lu manqué te gàllaa jëm fonko la moom ah. waaye suuru làmb ji waaw da ngeen si gis ko taxaw di niiraat boppam fekk am na lu war a ñëw te ñëwut su gaawee seetaan nag émission bi na dem si nekk tumba kaayam bi ah. su ko fa xoolee du ko fa gis góor gu ko liggéeyoon mu ngi côté Casamance na dem mu liggéeyaat ko balaay combat bi su deful loolu dafay daanu Casamance ah. parce que man affaire ah. na si mbër moo xamante daal a baaxee sarax ci ñoom ñaar su ko ñoom ñaar nag defee am na commission woo ne ma man fan su Eumeu Sène la Mm-hmm. waaye léegi sëriñ su génn góom yëpp nu ñu waxee dafa mel ni Sa Thiès day daane dama bëgg nga ñaanal yàlla euh, Sa Thiès mu daane te man mii tamit yàlla dafa def ne mm-hmm. wàllu bëri yi tey soo koy seetaan man ngaa far sax mhm. waaye man wàllu bëri yi daal léegi dama koo teg gannaaw mhm. waaye daal sarax bi nga xamante ni tey su ko nit ñi defee bis bi mën naa am jàmm waaw ngeen dem si jàmm ñëwaat si jàmm waaw benn deret ju bëri du fa am waaw kooku moom saraxu gerte la gerte xottu gerte xott gerte xottu bi daal suñ moo xam promoteur bu tëggal lamb ji bëggal lamb ji àgg si jàmm ak salaam waaw gars dem tim dem ñëwaat si jàmm ak salaam sarax bi saraxu gerte la ah, waaye kanta sarax boo xam ne kii da koy daan man ah. lamb sama yoon nekku si waaye daal benn mbër mi daal na dem nekk cumb kaayam bi xool affaire dóor mu daanu lu nekk mën na si am. Ah. waaw lu nekk mën na si am. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah